Heavyweights.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 ab zeng faqe ca kër dëkkandoom ko noonu mu daw di ko wàllu si ngir jël zeng boobu faq telloowaat ko place am nekk woo zeng ba dafa jàpp ci courant saay ba mu téye zeng bi ci la ko courant bi maas fassa si la jaaree ñàkk bakkanam ay waay Sénégal kañ la ñuy bàyyi jaareel courant ci kaw moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca jagli nekk ca Linguère doy na waar ay samba booy daal ñoo fa ñëw ak seenub 4 dal di attaqué village ba ñaawte foofu nag nee nañ bi muy am mu ngi xew ci booru vingt heures ci la samba boy yi dal di ñëw ngannaayu ba maara dee taali songo ab commerçant daal di koy laaj li mu yor naka noonu commerçant bi dal di lànk ma ne ko munoon nga leen koo jox rek te noppalu ci jàppal bàyyil boobu nag ci lañ tiire balu fetal commerçant bi ba mu jaare fa ñàkk ba kanam eskay samba boy yemuñu foofu dee ndax gannaaw si loolu dañoo dugg ci biir boutique bi dal di wammi koppar gu takku ga fa nekkoon dal di na fëx daw ma ne ko doo leen rëcc de ak suñu police bu xarañ bi léegi nag laaj bi mooy samba boy yi def braquage yi fan la ñuy jëlee armes yu sophistiqué yi ñu yor moo tax ma ne ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax ay way xale yi bàyyi leen géej gi barça wala barsàq ji ba léegi mu ngi wulee ñaay ci réew mi ma ne ba léegi xale yi ñu ngi nas ay pexe ngir jaar ci géej gi mën a yeggi tugal ca Kayaar nag gaa yi leet naa colonel yi teg nañu loxo ñeenti convoyeur ak seeni client yu doon waaj jaar ci gal gi dem tugal dugal ay xale leen géej gi te nag léegi xale yi dañoo xamul ni ci wàllu woowu gendarmerie ay mesures yu sévère la ci teg ma ne site de départ yépp daanaka dañ ko wër ndombo mbir moomu nag nee ñu clients yi ku nekk trois cent mille la joxe woon nañ ci ñaar fukki client naka noonu ñu tëj leen ci ab kër ca Kayar doon leen waaja yeb ci gaal yi yóbbu tugal section de recherche bu Thiès ak bu Kayar bi ñu yegee information bi ci la ñëw dajji bunt buntu kër gi dal di dugg ci biir kay bi leen gisee rek ku ne fox di xool foo jaar ñii di tëb miir yi ñii di seet fu ñu làqu waaye boobu boy woy na mbuus ndax gendarme yi wër nañ ndomba kër gi ña ca desoon daw làqu ci toilette yi ñoom ñépp teg nañ leen loxo ma ne xale yi bàyyi leen géej gi moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca jàmm gën si kambaaw romb na doy waar ab boucher daal moo fa ren rendi xaritam musiba naaru lay mbir moomu nag nee ñu nii la demee puuse bi dafa jox ñaari junni xaritam bi ngir mu livrer ko yamba yamba naka noonu xarit bi daal di jël xaalis bi daal di koy dugal ci yeneen yitte yox ko livrer yamba ji ci la puuse bi jëlee a xottu biteel dal di ko ne dégget rendi hmm, ma ne rendi sa xarit ndax yamba mim réew li fi nekk kenn mënu koo wax mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje semaine bii di ñëw ci yeneen xibaaru buzz